salaamaaleykum suñu mbokk internet Lerufisquois TV dal ne nag jàmm ci lu ruus ci xibaaru tàggat yaram di ko ubbee nag fële ca Barcelone joueur bi di wax eh, Rafinha moomee nag suñu mbokk taskatu xibaar yi ba nu ko laajee daal pour mu wax ci li mu xam ci Lamine Yamal moom daal eh, mi ngi xam la ne en dehors du terrain Lamine Yamal ku baax la nit ku nit ku nit ku dégg ndigal day déglu ay conseils yu magam ci loolee nag mi ngi ñuy firndeel que ne Lamine Yamal moomee da koy jàppale ci biir eh, terrain ci loolee nag la ñu gën a xam le ne Lamine Yamal daal buñ xaaree nag fi toogee ay ay ay ay jamono dana nekk jour boo xamante ne ñëpp dinañ ko dinañ ko dégg ñëpp dinañ ko bàyyi xel. bu ñu jógee foofu nag dañuy dem fële ca eh, États-Unis eh, équipe bi ñu wax Inter Miami Inter Miami nag bu ko waxee rek da nga ne équipe bu Lionel Messi loolee nag ay suñu mbokki naataango ñu ngi layam layam tamit naan. Euh, Inter Miami mën na bokk ci li nga xamante ne mooy euh, coupe du monde des clubs ndax lan performance yeeg euh, résultat yee nga xamante ne moom la actuellement moom la moom la amee loolee nag la ko waral résultat yee nag la ko waral mooy jour bi nga xamante ne mooy argent argentin bii di Lionel Messi di capitaine Argentine moomee nag moo tax yenn record yi yëpp yëpp yëpp yëpp waa waa waa Inter Miami am ko ci kaw loolu nag. David Beckham moom nag mi ngi kontaan lool lool lool ci euh, Lionel Messi. du ñu bu ñu jugee foofu nag dañuy dem fële ca Real Madrid joueur bi ji wax Jude Bellingham moomee nag ba ba Mbappé Kylian Mbappé ñëwee ba léegi ci équipe bi daal dafa am ay jafe-jafe yoo xamante ne jafe-jafe dugal jafe bokk ci ci jeu loolee nag li ko waral mooy système bi Ancelotti tekk maanaam daal di teg point ki nga xamante ne mooy Kylian Mbappé loole nag moo jur ay jafe-jafe yoo xamante ne ba ba ki nga xamante ne mooy nga am des fois nag du ci du ci du ci nekk bu ñu jógee foofu di ñëw fii suñu biir réew suñu biir réew nag li nga xamante ne mooy kan bicco ko ñoomee nag suñu équipe bii di euh, les lions de la Teranga ñoomit nag ñi ngi ci yoon bi pour euh, dem demi euh, final bu nu jógee foofu nag ba léegi dañuy ñëwaat uh, ci Papa Gueye Papa Gueye nag uh, militant raw Sénégal Sénégal bii di tamit uh, di jour Villarreal moomee nag gannaaw émission ba mu doon def ak suñu mbokki taskatu xibaar yi nag mi ngi mi ngi ay seede yu am solo ci li nga xamante ne moom la sekk ak Sadio Mané waaw daal ne fay wax ne Sadio maane daal ah, jour boo xamante ne dafa may qualité yu exceptionnel ba pare teg ci di leen ah, conseiller di waxtaan ak ñoom di leen delloosi di leen teg nga xamante ne moom mooy ah, entre grand frère ak petit frère loolee nag mi ngi ñuy xamal que ni am na benn admiration bu bu rëy rëy rëy ak Sadio Mané suñu mbokk internet Lerufisquois TV nii lay demee saa su ne di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk.